يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي فتاة يا كامل الأنوار jaa

waaw leen góor bil qalb fi العرب وامسر حج مالك فأعطاه ربي ارتفاع المقام ميرات بنكر العيدا والتوى طيف من يا أخي قد وقر شيخ بالقلب فيه moo fuñ ko jëlee te fa min ayna tadri tadri bi misli law xaabaakul ila kudul arsh istawa saratifu man ya aqi qadhu waw gur cabil qalb fihi moo fuñ ko giseeti fa min ayna tadri tadri bi mislin law xabaahul ilaahu dul aashistaay يا أخي قد يفلني بالقلب فيه العرب مولى فكي أميتي فمن أين من أين تجري بمثل لو حباه الإله ذو العرش استوى بين سراتي فمان يا أخي قد هو وقرك بالقلب فيه العرب مام سيدي حاج مالك فشرف شرف كل دار يا العالي بنا تلي من عوته واحتوى بين سارة تيفو يا أخي يلا لو كنخ ليدف بيه القلب في حين عرى يلا لو كان يخلي دف وفاعل فاعل ما شاء يفعل ما يشاء لمفعوله وفعل بين سراتي فمان يا أخي يلا لو كان يخلي دف بالقلب في حين عرى يلا لو كان يخمي أم وفاعل فاعل يفعل ما يشاء لمفعوله وثواب طيف من yaa axi yàlla lu ko neex lay def bil xalbu fi xin ara maam Seydi Hadji Malick qad ihtaz dinun bi naylil muna fa yarfa'u an kulli waqif bayna saratifman yaa axi moo fuñ koy jëleete il qalbu fi il aara Maodo fuñ koy giseeti qad taz binun binun نيل المنى فيرفع عنه كل وخوى نم ملك خلي أك توتيا سبب لولين te bu leen sukkandiku yëngu sabab lu leen te bu leen sukkandiku yërgile hada zama nu ka amrin mubhamin alanan xalaqalam ñooya moo ci mbiri ak dogal ya sabab lu leen te bu leen sabab lu leen te bu leen sukkandikoo góor gi ne nu la mawla al karim naam njariñ lu dul moom muy coono ak fitna sabab lu leen

شكاية يا قوم بلا عمل ذروا شكاية يا قوم بلا عمل تبو ديف سنيان تمريب موي سبب يا سبب لولين تبولين سكانيكو يمو فها نحن في ديع شديد التراكم فها نحن في ديع ولم نرج فارجا يرنن سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا kenn du sama turandoo gariban kama fil bariya ayra rahimi ilahiya fajal ahlana ala ghurbatin wa ahla tibai sunnatin fi tarahumi na عليها بالنواجس مثل ما bi qaala fi isa yi nadratu moo tax yéen waa moxtafiina ak waa mustarshidina ak daayira yëpp bu leen neexeek bu leen dem aljanna amin seydil haaji maalik nee bu ëllëgee ku topp ci sama ginnaaw lu sëmb bu tilim tilim kenn du la wàññi moo tax ma ni ko Seydil Haaji Malik ku ànd moom du des gannaaw maam Seydil Haaji Malik waawa ku ànd ak moom du des gannaaw seen loxo yi ca Malik mooy sama maam sama turandoo la Seydil Haaji Malik waawa ku ànd ak moom sun loxo yi ca kaw bu yawmal qiyaame ku topp ci moom kenn du la tee maam Seydil Haaji Maalik waawa ku ànd ak moom seen loxo yi ca kaw ma nga judd ca gaaya moo raw ca gaaña lii leer naa ma Sidil Haaji Maalik ku ànd ku moom des gën seen loxo yi ca kaw yàlla indi ko Tiwaawan ma Maodo leeral réew mi lii leer naa ma Sidil ji maali ku ànd moom du des gon loxo yi ca kaw maam Ousmane mooy baayam faawa di weele yaa ja lii maali ku sopp Seydi Hadji Malick ni seen loxo yi ca kaw ñi nga jàngal ci réew mi ñooñu ñoo ci réew mi lii leer na ma waawa ku ànd ku moondu des ga seen loxo ca kaw képp ku fi am xam-xam amel na la jukkal lii leer naa ma su bàyyi mbay donde lii leer naa ma nangu naa waaye bul dendale lii leer loxo yi ca kaw barke sëñ Babacar pas pasu bàyyi mbay doon def lii leer na nangu naa tëkkale tëkkale lii leer loxo yi ca kaw waa bu gàmmu gi jubbisee mawla ya salli ga jolli na nangu naa tëkkale waaye bul dendale lii leer loxo yi ca kaw bu ñu burdoo fukki fan noppalu bu ñu xëyee gàmmu lii leer naa nangu naa takkale waaye bul bul dendale lii waa muxtafin wax leen jaaraama Seydil Haaji Maalik jaaraama jaaraama wax leen jaaraama sëriñ si Xaaji Malik jaaraama loxo yi ca kaw nañu wax jaaraama Seydil Xaaji Malik jaaraama wax leen jaaraama Seydil Xaaji Malik jaaraama waaye ku sopp maam Seydil Xaaji Malik defal ni ñu màggal وقد باق حر الشمس نحو تبرد ni Serigne Aline Gueye mu ni Seydil Hadji Malick ci biir suuf ren ji ku sot sa xalima samp ko ci daa bind te bindoo ci loolu sa mbind sànku na ودان كاطل عيلا ببرقة ثمدي لخولة مقتص فيها بكيث مدي وما قول ليلى والرباب وفرتنا وما قول هندين بل حصل ما ومهددي ودع ذكرى أيام السبا والليالي ودع عنك تذكار المغالي كرادي يندي سرين ألين كي muy kuy bind bindal ci maam Seydil Hadji Mali ngi ci biir ba mel tey walakin tafakkar kayfa dijatu seydi la daarodi wal xatbu ashgalan dadi walakin tafakkar كيف ضجعت جهبذين حبيبين خليل الكل برين ومرشدي ولكن تفكر كيف ضجعت من مضى ila rahmatil mawlal wafil mutagammidi ñu ni Serigne Aline Gueye mu ne kuy bind bindal ci borom parasol bii nga xam ni ni bidiw étoile polaire di gindee mool bi ci géej ba mu teeri tefes incha allah noonu la gindee julliti ba ñu teeri aljanna ni weeru badar di leere le guddi noonu la leere le diine moo tax Serigne Habib Sarr yàlla na yàlla yokk leeram na wax xam-xamu maam Seydi El Hadji Malick gàññ ak naññ nee na gàññ leer na naññ walakin tafakkar kayfa dijaatum muhtadin ka najmi dujaa bal badrihol mutawaqidi ñu ni Serigne Aline Gueye mu ni kuy bind bindal ci maam Maodo mi nga xam ni nee na yonent bi mën na maa gën a gudd tànk mën na maa gën yaatule tànk waaye fu mu teggee tànkam xam leen ni man Malick Fawad bi dinaa fa teg sama tànk bi duma rax sunnam benn yoon eh xam ngeen ni raxul sunna yonent bi de walakin tafakkar kayfa bid'atun muktafan bi sunnatal hadi nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ni Serigne Aline Gueye mu ne kuy bind bindal ci borom parasol bii nga xam ni ku iñaanul soxorul xam ni moo doon secret Cheikh na Tidiane Chérif wesaare salaatul fatihim bi ci réew mi ba lugg na jaww Sénégal sukuraat la jëlatu fi kenn da ngay nelaw ba dem rek lahoo faydun yafiidu amima kullin fama baqiyal kiraamu wala li amu walakin tafakkar kayfa dija atu waarifin أبا الفيض قطب الأولياء ابن محمد moo juin talaata 27 vingt 1922 ci la seen maam Seydil Hadji Malick dem barzax ne nis tuut fees del boo sànnee mbatt mu takk magasin yi tëj seeni bunt comme dibéeri maam dabax jak bésu borom daara ji rek fa xasat fi jaajul arabi lam tara furjatan taqul ala indi sabilun li wurradi wa xuliqatil abwaabu doona tijaratin waqad urjufal aqwaamu min xëy bi siyidee ne ñay jooy ngay jooy ñay wazifa ngay wazifa ñay jàng alquran ñu ngay jàng alquran fa kaana tisaalu daakirina tisaalum bukaa ana la daa kulli wa maqaadi xel yépp gëlëm wa uddi hishatil albaabu kaada tasaddat sudur ahli bi kulli tanawudi ne nistut ñu romb maag ñetti njaq bee ñu def ca ndoxum kese bee ñu def ca ndoxum goowe bee ñu def ca ndoxum déem ñun ñu ngi bëgg a sang maam Seyd Alxaaja Malik ne may xuloog sangkat yi nan leen kii ngeen bëgg tuur ñetti njaq yi moo gën a fees géej ndax geej mënta paase tooyal te fes te xam-xam bi ci dënnu Maodo baaw na ba jël océan Atlantique tooyal Amérique baaw na ba jël Méditerranée tooyal Europe baaw na ba jël mer Rouge tooyal arabi et kii gën fees yéeg su ñetti njëkk dee sang matière a tax wamina ajabin taxsiluwul kulla kullatun wa fi sadri mil bahri sàmmmu si bii di nee ñu sang mam Maodo teg ci jàkk ji ne ma jàpp ci bant bi jooy naan bant bi kii tëdd ci sa kaw bu la demul daa jox yoon cëram waaye muñ gi ci dëmm dënnam bi ku ko pëseeg montagne bi mu gën koo diis e li gën a diis montagne bu damul bant kay matière a tax ومن عجب حمل الأخلاء بالناسي ومحمل صبر وزان بجلمدي seen maam Serigne Babacar jiitu ànd ak seen maam Cheikh El Hadji Mansour ak sunu maam Dabbaax Malick ne ñu teg mam Maodo ca bopp jàkka ja ne ñu teg mam Maodo ca boppu jàkka ja mu ni mam Mor Xuja si kaay Ahmadou lu jur mook Ousmane mi jur mam Maodo mi ñoo bokk ndey ak bàyyi kon kaay jullee Cheikh Alhaaja Malick ne ñu jullee Cheikh Alhaaja Malick def ci bàmmeel sëriñ Aliou ne dem dem mënumaa dem samay tànk jaxasoo ne ma ni bàmmeelu bàyyu Cheikh El Hadji Mansour lan ngay wax waa muxtafin waay fa waajaban min ahsani durri xuztawo dariixa abil mansuuri migyaan مكمدي تغيبه عنا وفينا تفجع ترى صدفا في يتيم الزبرجدي ki tëdd suleymaanu amrin def leen ni ci maami seydil jamil muusawiyum bi najdatin def leen ni ci maami borom daara yi xale def leen nii ci maam yi Serigne Cheikh Tidiane si sunniyul li muhammadi def leen nii ci maam yi Serigne Abdoul Aziz Al Amin e seen maam Maodo Serigne Cheikh nee na ñaan dañ koy dimbali Serigne Cheikh nee ñaan dañ koy dimbali sunu maam Maodo li mu ñaan da koo jëfe tahir lana min danasil harami wa shubhatin mujibatil malami bàyyi fële yàpp bàyyi fële soow ñu ni ko ndax daa xaram mu ni daga na sax waaye nag weeg xar meeg bëy wi laa wóoluwul ñu ruur tollub jàmbur mbaa ñu laal soqub jàmbur ak ja topp leen moo tax ma faf leen fi tekk waaye def leen ni ci maam yi Serigne Moustapha Sy damun xaalisun laa yaqdiru lxamla darratan min adaymi anul lil xibaar الحسد يا سيدي يا رسول الله شفيعنا يوما ينادي المنادي في لواء شفيعنا يوما بالمنى sang bi ci Madina ya Sayyidi ya Rasul الله شفيعنا يوما ينادي المنادي في الأواء شافعنا يوما ينادي